ren ñepp xam nañu année scolaire ni mu démé gis nañu jafe-jafe yi nga xamné mbass mi mom moko ko indi loolu ci lañ doon waxtaan tay wo sunu bankhas yépp yi nga xamné ñu nekk ci biir Sénégal ñu dal di waxtaan ci pour man ko xayma pour mëna aussi def euh, euh, manam euh, année scolaire bi di ñëw ñu waxtaan ci aussi jema wax sunu xalaat ci wayjuru ndonga yi lan lañu yaakar ne bu fekkee ne defal nañ ko ci walu wér yaram

tégu ci yoon ñun nak gis nañu né amna école yu bari yo xamné yi dañuy ki ci suuf te duñ ko bind de dañuy wo individuellement parents d'élèves yi di leen wax ñu dal di fay wéru avril mai ak juin ñu japp né lolu du dëgg du yoon té interpellé na ministre bi ba cité ay école nommément yi nga xamné yi ñom ñu koy def yu mel Saint-Michel Gabi School Notre-Dame du Liban Notre-Dame de Cap-Vert Médéey Sall Collège du Sine ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ci Sénégal ñu ngi leen di invité nag ñu dal di remboursé bu ñu remboursé wu ñu dal di koy jàppe ne am na loo xam ne lii ameel nañ ko wéyjur bi bu ko defee bu fekkee dañuy réinscrire ñu dal di leen ciy dugal. loolu occasion la pour ñu dal di wax ne sunu membre bi di maître Max Soxna kan ak SOS consommateur dañuy liggéey ak ñoom commencé nañu liggéey. ci walu euh, lepp lo xamne li da fay laal walu parent d'élève té ce projet là mom a problème école privée aussi mom dinañ ko porter donc di profiter ci occasion di ko remercier ci téwayam et ubil ko suñuy bunt né li comme ma kay faral di waxe rek nañu né buñu yalla dimbalé ba lu melni ñu ci yëngatu dañ ko wara considérer comme comme jihad